ne ay candidature donc mais du lu mën a nekk du lu mën a nekk euh, xëy na peut-être euh, bokk na ci ay pexam am na yenn pexe yi mu laal tamit xam na waaye waaye muy sabotage élection yi comme ni ko defoon euh, defoon Touba ci élection député yi diggante Thiès Dakar ba Touba moom Macky Sall la koy saboté moom incha allah waaye nag <laughs> ngeen taxaw rek en tant que jeune fexe ba élection yi jaar ci yoon. Euh, convaincre nit ñi ñu ñu ñu liggéey pour changement mën am ci Sénégal waaw loolu mooy liggéey bi euh, ngeen di di daje sëriñ ah, di waxtaan ay programme tamit incha allah dañu accompagner loolu bu soobee yàlla waaw maanaam man maanaam man bëgg ngeen ko ah, waaw xam nga xam nga xam nga li ma wax léegi rek donc ñu dañu nekk opposition ñun bilan moom euh, lañ ci def moom euh, depuis conseil régional wax nañ wax nañ ko léegi daanaka ci Touba moom jëtu sax may wax sama bilan fi ñu toll nii ndax bilan moom wax naa ko na maa def na ma na maa def. waaw na maa def donc pépp euh, ci Touba fooy dem rek am na lu ma fa liggéey. am fa liggéey donc liggéey boobu la ñuy continuer donc lañ mën ci jàppale leen incha allah xale yi danañ ko def bu soobee yàlla lépp loo xam sama possibilité ma mën ko moom maanaam du leen génn bu soobee yàlla waaw sama incha allah du leen maanaam du leen génn incha allah loolu dinañ ci liggéey bu soobee yàlla kon xam naa kon ñu xaar ndogu yi ñëw rek ngeen ngeen ngeen ndogu. ala nabi an yasalli bi salaam yaa man bihi li qutta afdal al kalaam bi haqqi wajhika al karimi xallidi lahu salaamayka wa safi xaladi uktub bushaarata al jamili al akrami bila intihaa in lil nabi al mukarrami naafiu hablil muntaqa manaafiaa fi yawakun li aasiman wa naafia ramadan raafiu salli bi salaamin xumida ala alladi sammaytahu muhammada maliku salli wal tusallim kulla xiin ala alladi li jarra xubba saalihin dumma bijaayihi salaati li fial ashaabihi yaa man bihi yabdun fial